Thank you. Assalamualaikum, mbok internet yi setan sen site internet Ngoy TV ñu len leen bëggwaat len bu baax baax tay nak dañu am mbégte ak contenté bu baax baax ci saltige Jogoy Njaay déplacer wu tay ñew seet suñu fi nga xam modi suñu makan ci Ngoy TV jóge nga fale nga xam modi diwanu Ngor Almadi yof ah euh, ñu fas waxtaan ak mom nak tay ci xam-xam ci lu bare bari bari euh, gis ngeen bagage yi nga xam ne bi mom lay liggéey bagage yaangi non ci écran bi numéro mi itam mo nek nonu tay nak fekkuñu ko keram waaw motax yeen bagasi bagage yi duñ ko mëna woné mu koy ci loxom di présenter li li lay jariñ li li lay jariñ mais képp ku ko ci numéro bi rek inshallah allahu rabbi diñ ko jot to dina jëflanté ak yow fo mo di nek ci aduna bi amna ay CP yu dem bitim réew amna ciak cak itam fo mën a nekk ci Dakar mën na la ko yobanté dañuy bàyyi saltige rek mu noyo di bal ak moom itam ci koor gi ah ak déplacement bi yëpp saltige ñu ngi lay bu baax baax waaw Moussa maa ngi lay fay bu baax. di la ziar rek di la magal. Mhm. di la jox sa wàccuwaay. dëgg la. di kontaan ci yow rek. ci sa mhm. sa émission bi ngay def ak man. Mhm. Ngoy TV di di la ñaanal rek. Mhm. émission yi gën a dem kaw rek. amiin yaa rabbi. di la ñaanal koor gi ñu dugg nii ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim ngeen ci ca alhamdulilah rabbil alamin amiin yaa yàlla nangul ñu suñu koor bu baax a baax. amiin barke nañ tudd allah euh, saltige Jogoy Ndiaye ñu gën laa xam ci turu saltige Jogoy Ndiaye. Euh, saltige Jogoy Ndiaye noonu nga tudda tudd rek wala yow yaa tuddee sa bopp Jogoy. man nag euh, jogoy laa tudd. jogoy nga tudd tudd sama tuuru dëgg dégg jogoy. njaay njaay la. waaw mais gars yi moom saltige rek lañ. may woo la ñuy woote da ngay gis sax noo xam ne moom dañ ma wax saltige duñu ak sax ci jogoy njaay bi mais saltige rek lañ wax noonu. dëgg la waaw ndax tu tuur bi quoi. ndax tuur bi mm, tuur bi ak li may liggéey nii affaire saltige yi nii moo tax saltige rek lañ. wax saltige rek lañuy wax mais jogoy njaay mooy sama. mooy sa tuur dégg mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. euh, nga dëkk diwaanu euh, fale na xam ne moo di jaxaaw. ku tudd jaxaaw itam wax xam-xam ku tudd jaxaaw itam xam ne ay ay sax ay borom xam-xam rek a fa euh, soqeekoo mën nañoo xam saltige Jogo Njaay ci ban famille la bokk ci euh, foofu. Mm-hmm. man nag maa ngi dëkk jaxaaw siin mais mm-hmm. quartier bi ñu wax Njom Ñeex. Njom Ñeex Njom Ñeex fa laa dëkk. Mm-hmm. Euh, Njom Ñeex nag benn quartier bu ndaw la nii rek. ok waaw fa foofu laa cosaanoo. man nag damaa judd ci ay affaire ba da gis guy gi am. Dakar bi mm-hmm. moom moo tax ngay daax borom gurgeeg Dakar bi asal tigi jogoy borom gurgeeg Dakar bi mm-hmm. loolu moo tax ñun dañuy judd ci loolu comme ça ay rawaan la ñuy yor ndax man des fois dama la koy wax man yëruma ay jëne mais ay rawaan laa yor ko waa moom lay liggéeye moo tax mm-hmm. rawaan ak jinne lan mooy seen différence non bokkut bokkul non non non non bokkut rawaan ak jinne bokkut bokkut de ndax rawaan mën na la jox loo xam ne jinne mënu la koo jox wala jinne lu jox la lu la rawaan mënul jox non rawaan yi moom. Mhm. dafa assuré lool ndax moom rawaan yi moom dañ liggéey ak rek ba pare def lay aar. ba pare tam soo tëddee dañ lay won guddi. ok dañ lay won bu baax a wax soo jubee ak ñoom bu baax. Mhm. def leen li ñu soxla di leen neexal. Mhm. dañ lay won bu baax a baax da ngay gis. da ngay gis comme ça soo ñaroon ñëw ci man sax nii nii nii nii. ci guddi bi dinaa ko gis su dee lu bon nga war a indi foofu. dinañ ma wax dinañ ma wax ne Moussa bii ñëw ci yow. lii ak lii moo ko tax a jóg. ok waaw soo ko defee dina xam bu baax yow soo ñëwee toog rek dinaa xam lépp incha allah allahu rabi. macha allah mm-hmm, mm-hmm. muy lu am solo loo xam ne loolu moom lu am solo la. Mm-hmm. ndax saltige nit mën na jóge fa la ñëw ne man de damaa bëgg euh, ay tuur. nga ànd ak moom dem sampal ko. loolu moom. li ma ko def bari na lool. ñi ma sampal. bari na lool. ñoo xam ne léeg-léeg ñu bari dañ may woo loo xam ne. comme ça dañ liggéey ko may li may liggéey. waaw mais dañ may woo téléphone. Mhm. ne damaa bugg a dugg ci mbir mi damaa bugg nga sampal ma. Mhm. ma defar la préparation. Mhm. wutal la ay bëjën mooy béjjën yu mag yooyu. ngay gis waaw waaw daa am yu nekk ci biir. nga sampal ko nit ndax nit avant muy dugg ci loolu rek il faut mu am kaaraange bu day sëkk ndax nekkul da ngay jékki rek dugg ci sa bopp sa foo amul sa bopp bopp bu baax sa bopp feesul amoo xam-xam soo ci duggee rek daa am na muy demee quoi dëgg la daa am na muy dal lool moo tax il faut nga fagaru def kaaraange bu mot sec hmm. lool moo tax damay samp loolu mais ci béjjën yi laa koy defee samp la mu nga xam ne da am samp bu dëgër hmm. kenn du la mun a yàqal dara bu ñëw pour la daal sax day delloo ci kawam. Mhm. yooyu yëpp day nekk ci mbir mi nga préparé ko lépp sampale ko mu door a commencé. mu door a commencé waaw mais am na loo xam ne nag kenn mënu koo jàngal nit loolu moom sax am xamu bopp la comme ay affaire seet yi. jàngal ma seet affaire yooyu man ay rawaan laay seetee du ma laal peetaaw. Mhm. du ma laal peetaaw du ma seetee suuf danga may wax sa tur ak sa sant soo ñëwee si baaraam bi fii. comme li ma la waxoon rek fii laay gisee li ma lay liyee. moo tax affaire ay rawaan ñoo may wax te li ma la wax de am du foose. Mhm. waaw loolu moo tax. macha allah. kon daal ku dëgg ne saltige day def ay sampalaate day fekk nga am sa xam-xam ba pare doog a dem mu doog la sampal mm-hmm. mhm. waaw voilà mm-hmm. acca kon gis dëgg ngeen ko numéro téléphone saltige baa ngi noonu ku ko soxla rek mën nga ko woo mu ngi fii nii ci diwaanu ndakaaru ngor yoof almadi waaw képp ku ko woo rek dina la tegtal incha allahu rabbi bu nga egsi ci moom mm-hmm. eh, saltige comme seet boobu nga wax léegi nga loxo ngay seete mm-hmm. eh, ndax nit itam bu bëggoon listixaar ndax dañ koy listixaaral wala waaw moom nit su bëggee listixaar mm-hmm. comme saa su ma su ko neexee def may woo su guddee su xesee guddi rek daf may woo téléphone ma fanaanoo ko nga fanaanoo fanaanoo it cinq personnes ci laa yem cinq personnes waaw waaw duma duma ko passé doo ko passé waaw waaw su ma ko fanaanoo rek bu subaa si suba si rek su ma yeewoo rek moom su ma wooy dinaa ko ah, wax lu leer nañ nañ nañ nañ hmm. fanaanoo bi itam daa am li ñu def rek daa am benn béjjën bu ndaw bu ñu njegenaayoo ok waaw boobu sax soo ko njegenaayo boobu sax su ma la ko jogoon nii nga njegenaayo ko yow ya, da ngay gis normal mais soo amul bopp bu baax da ngay tiit ci guddi bi loolu kay atam waaw waaw da ngay tiit ci guddi bi <laughs> waaw <laughs> walaay walaay est-ce que mhm. après loolu moo lay wax kenn ku nekk jafe-jafeem ak li war ci moom da ngay gis normal comme ay boo xam ne da ngay teg nii rek. waaw jàkkaarloo mu di gis. loolu moo tax am na ku ma ko joxoon mais affaire seytaane moo ko xawoon na jàpp ay nitu guddi. Hmm. ma ne ko am dee ko njëgeen naaw rek. sooxal ko ma dee ko njëgana mais daf ko njëganaayoo ci suba si la ma wax kaay jël sa béjjën ndax li may gis ñemewu ma ko. allahu akbar mm-hmm, loolu moo tax. est-ce que muy lu am solo loo xamante nii ah, am na solo bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ndax saltige day dugg xaluwa comme ni ko yéen borom xam yi di defee comme kilifa woo la mënul déplacé wu. Mm-hmm. ne damaa soxla nga ñëw sama kër liggéeyal ma biir une semaine wala deux semaine ba un mois. voilà non loolu moom defuma ko. dama ah, ko def man moom ku ma soxla. Uh-huh. man du ma déplacé sax. ok di déplacé di dem di ñaan ak nit. waaw déedéet man ku ma soxla danga may fekk wax ma sa soxla ma def ko mais man duma ma déplacé. dëgg la ku ma woone ma di ñëwal nga defar ma lii déedéet jo loolu sax aw ma jotam. jot bi laa amul. macha allah ku ma soxla dangay ñëw directement ma defaral la. Mhm. wala suñu waxtaanee ba juboo su ma la defaree ba pare dugal la ci horaire yi mu ñëw. mu ñëw incha allah man loolu laa liggéey ma man sax duma ma dugg xalwa. Mhm. xalwa yi ngay wax noonu du ko dugg. ok waaw. Ah, mhm. acca saltige loolu am na solo lool lool ndax ndax mbokk yi dañ koy faral di laajte lu bëree bëri mhm. acca ñu ñëw nag ci wàllum euh, kaaraange saltige euh, nit ki bu ñëwee mhm. euh, da koy xoolal afaa nga koy jox kaaraange mhm. wala nit ki day ñëw rek ne dama bëgg kaaraange rek nga jox ko kaaraange non nit su ñëwee moom nit moom balaa nga koo xam rek nga xool ko ba pare. xool ko ba ndax soo demee hôpital ni sax avant ñu lay faj dañ lay xool. dëgg la de. loolu moo tax dañ lay xool ba pare xam li nekk ci yow ak jafe-jafe yii. Mm-hmm. après ñu door la wutal kaaraange bi. defal la mm-hmm. kaaraange yi nag bari na ay façon am na ay sangat am na ay ndombo. Mm-hmm. am na ay béjjén. dëgg la am na sangat yoo xam ne moom soo ko xasee sangu moom kula la laal moom. Mm. kooku yërem naa ko. dëgg la waaw sangat yoo moom sangat yu danger la. man nag du ma yàq nit mais defal damay defal nit loo xam ne day def koy quoi mais pour liggéey bu bon moom duma ko liggéey dëgg la waaw soo ñëwoon pour jox ma ay millions sax duma mm. liggéey nit lu bon ndax loolu moom damay xool yàlla te xam ne fii moom àdduna la yàgguñ fi day jeex waaw day jeex moo tax man dëgg la mm-hmm, maanaam comme góor ñi ñëw ne dama bëgg diw takkal ma ko ba duma mën a bàyyi wala soxna yi dem sama borom kër dama bëgg mu yem ci man liggéeyal ma ko yooyu doo ko def mm-hmm. non damay def nag mais daa am ay façon yi may def comme ça nek ak sa soxna ni ngeen di rero mhm. di am ay problème xam ay problème mom baxul surtout surtout diganté deug la so so su boobaa soo ma sama soxna de damay am ak mom problème mhm. mais dama bëgg nga téyel ma ba nga xam day yem ci man duñu amati benn problème loolu mom dama ci dox bu baaxa baax ndax jubbale nit ak nit dafa baax loolu mom sax tiyaba la deug la mais so ma waxé affaireu dédalé mom duma ma ko liggéey mais jubbale mom dama koy def bu baaxa baax ok wa jubbale mom dama koy def bu baax wala mu ni nit ku jigéen koo xam ne moom am na jëkkër ba pare mais day dem di taxawaalu quoi loolu moom dafa bari am na yoo xam ne moom day am jëkkër ba pare mm-hmm. mais su génnee rek mooy loolu mm-hmm. am góor yoo xam ne it am na ay jabar mais dañuy am ay gel rek di dem di ñëw respecté wu sax seen jabar lool itam am na ay ay boo xam ne mm-hmm. boo soo ko defee rek utiliser nañ koy war a utiliser rek. Mm, mm, mm. su dee ku jigéen ki mooy dem day yem ci yow du defati dara. dëgg la waaw su dee ku góor gi itam day yem ci yow du defati dara. dootul def dara. Mm-hmm, mm-hmm. macha loolu de am na solo. wax dëgg fa yàlla muy sama mbokku góor yeeg mbokku jigéen yi. Mm-hmm. ñëpp waaw jigéen yi dégg ngeen ko képp ku jàpp ka ne sa jëkkaat day doxaan. yemul ci yow wooteel ci numéro boobu saltige Jogoy Njaay defal la lu tax mu yem ci yow wala bépp góor bu woolewul sa jabar itam. mën nga woote dem seeti saltige yi itam mu defal la ko euh, kaaraange ba léegi nga ne am na ndombo am na sangu am na itam euh, dafa bari dafa bari mhm. ndax moment bii nii lu nit amul te amul kaaraange rek amoo dara bayre sax nit yi dañ koy sangoo te amuñu kaaraange mu dem ba ëpp leen doole euh, gaañ leen mhm. waaw mhm. loolu itam euh, noo koy mën a jàngatee maanaam nit ki daal boo koy boo bala balaa nga ko wuutal kaaraange daal da ngay xool kaaraange bi nga xam ne moom méngoo ci bëgg-bëggam nga defal ko ko waaw kaaraange bi nag ah, mhm. am na ñoo xam ne dañ ñëw pour ay bayre comme am ay tour nii mais mhm. am na bayre boo xam ne soo ko laalee to amoo galaaj mhm. def day dem a dem sax boo def la indi ay problème di la dugal ci ay loo xam ne dañ koy dug dug ci ba pare di ko réccu nit yi sax mun nañ laa tuumaal ndax bayre bi dañ lay tuumaal dëgg la waaw ndax bayre bi loolu moo tax bayre soo ko amee dangay nga war a am kaaraange bu mu sek ak muslaay boo xam ne danga koy yor kaaraange yi nag am na ay nombo am na kaaraange boo xam ne nombo yi waaw nombo yi dama koo indul fii ndax éléments yi fi bagage yi ñëwul fii mais nombo yi moom am na fi mhm. kaaraange am na it boo xam ne dam koy sangu rek mhm. sangat boobu nag soo koy sangoo dangay taxaw ci xeer mhm. xeer xeer ngay taxaw fu dëgër daal su nekkul xeer itam na dëgër rek waaw nga taxaw foofu sangoo ko lépp mais boobu soo ko sangoo ku la liggéey day delloo ci kawam am na itam loo xam ne itam ku la liggéey du jàpp rek mais am na loo xam ne ku la liggéey day delloo ci kanam kawam ñaari façon la ñaari façon la ñaari façon la mm, loolu moo tax ku la liggéey moom day yëg ay métit ci yaramam yëg ndax foofu comme yaram yi day tàng jire mhm. ndax loolu ay xalu safara lañ koy sangoo ay xalu safara yu xonk cur loolu moo tax soo ko xesee sangoo rek ku la liggéey moom yaramam day mel ni luy tàng rek luy tàng ba moom ci boppam su la woowul wax la ko mhm. dina am problème bu baax dëgg la mhm, macha allah muy lu am solo loo xam ne yàq doomu aadama nañ ko bàyyi su fekkente ne ñu ngi ci baax baaxul ah baaxul mais sëñ bi itam foofu itam ah, dama jàpp ka ne yéen sëriñ yitam am ngeen ci part de responsabilité bu rëy ndax yow mën nga garanté ne man duma liggéey faatu wala duma liggéey Omar mais sa moroomu sëriñ moom moo koy def. waaw moom moom laa la doon wax noonu. man damay liggéey liggéeyal nit kaaraange. waaw mais duma liggéey lu bon quoi lu yàq nit. dëgg la nit yi nag dañoo bari te yemuñu. am na ñoo xam ne xaalis rek la ñu gëm. ñoom xooluñu sax yàlla xooluñu dara. nit da ñëw rek ne ma liyal ma diw. ba damay bari ci ay cas trop. nit hmm. mos na ma woo téléphone. ne ma diw de dama bëgg am moom liggéey mais patron patron bi moom moom la gën a sub ma bëgg nga dëddalal ma ko ak patron bi xoolal loolu rek ma ne ko yow est-ce que xam nga li ngay wax mhm. ndax kooku xamoo ndax ay waajuram ak ay njabootam ci lu muy liggéey loolu moom la ñu yaakaar léegi su ma ko dëddalee moom ci boppam mhm. weer dee ah mu war a jëndi saaku ceeb ay diwlin ah hmm. léegi su ma ko détalee moom lu muy jëriñati seen waa kër ñu toog di ko xaar ma ne ko est-ce xool nga li ngay wax bu baax mu bëgg a wax ma ne ko bu ma hmm. loo xam ne moom du ma sori ak wax loolu sax soo ma woowee am looy wax rek dama lay coupé dëgg la dama lay coupé directement ndax hmm. yooyu moom duguma ci loolooy fula fayda wax dëgg fa yàlla muy dingi te itam loo xam ne ku bëggul ñu def la ko rek bu ko def doomu jàmbur eh, saltige ñu ñëw itam dugg fi nga xamante moo di jaxaaw taxaw mm-hmm. di gis saltige ci àll bi ci ay guy Mm-hmm. ak yenn Dakar lu kenn xamul daal saltige lan lay def foofu waaw loolu sama rawaan yi la guy yi ah. guy boo xam ne dafa am pax bu rëy waaw pax bu rëy boobu su la ne nga dugg ci biir ah. foofu soo fa xamul foofu dema dema dem foofu waaw ci naaj bu tàng comme ça ci digg njoloor nga dem foofu waaw di nga fa am loo fa fekk mu togg allahu akbar mm-hmm. keroog barke dem rek laa dem village waaw am na benn femme moo xam ne sa bagage damaa ñëw foofu mais am na gis naa lu fa toog man ñemuma foofu sax ah. ma ne dëgg la foofu daa am lu fa nekk. Mm-hmm. waaw daa am lu fa nekk loolu moo tax guy bu mag la yor pax bu mag pax yaakaar naa yow gis nga ko waaw gis naa ko ci vidéo yi ah, gis nga ko ok mm-hmm. loolu mooy rawaan yi nag rawaan yi mm-hmm. ah. ñu ngi tudd ngelmaak ngelmaak ci séeréer ngelmaak waaw mooy penc bu mag voilà guy gu mag la est-ce maanaam foofu tuur yi yëpp yëpp yëpp foofu la nekk quoi waaw a bagage foofu la nekk foofu la tuur léeg-léeg sax da ngay gis nii bagage yi def may yëngal ndax su ma leen neexalul genre soow su ma tuurul daa ngi def may yëngal damay naqari deret sama yaram yi tang jirik mun nga ma wo ni sax ma ñaké lakel sax to man duma ko tay so comprendre rek moy lolu mais ku soko comprendre rek di nga comprendre ni ki amna lu nek ci mom mais man nak jour lundi wala jeudi mhm. mom lañ may nga lolu mu tax su joté rek suma mënul tour damay saraxé sax soow wala suukar dama ko saraxé lu bari mhm, soko def rek da nga manam yow dal say rawan presque mon na né ci walum dal ak sukar. wala wala sa rawan nak bëgn nañ lu neex dé <laughs> wallaay <laughs> wallaay <laughs> mais su dee affaire deret moom suukar <laughs> affaire deret moom duma ko laal ah macha allah su dee affaire deret moom waaw waaw waaw ndeysaan loolu am na solo wax dëgg am na ñoo moom ay jalañ lañu yor dañuy liggéey ay deret dëgg la di tuur di sotti waaw loolu hmm, moom duma ko laal léegi jalañ boobu gars yi di def noonu ndax ah. comme bëjën yooyu ñuy samp itam ak yi ngay samp di soti soow dañuy xaw a niroo léegi lan mooy différence bi bokkut bokkut bokkul hmm, hmm, yeah. Uh, affaire jalañ jalañ yooyu ñemewu ma koo laal sax sama bagage yi bugguñ ko uh-huh. mm, mais béjjën yi may def waaw béjjën yu set lay doon ok yu set lay doon ba pare parfum rek la ñuy soxla parfum xam nga ni ñun li ñuy julli moo tax di nekk ci diine bi loolu am na ñoo xam ne duñ ko def quoi dëgg la dëgg la waaw loolu moo tax quoi mm-hmm. loolu pour kaaraange rek moo tax ñu def ko comme ça loo xam ne def lay aar rek nit yi duñ la mun a yàqal nit yi duñ la mun a defaral dara loo xam ne lu bon bu mu dal la mm-hmm. ku indi foofu lu bon mu delloo ci kawam loolu ko moo tax ñu liggéey ko teg ko noonu waaw ndax xam nga rek nit yi dañoo yemul mm-hmm. waaw loolu moo tax ñu liggéey ko noonu ñee nag am na ñoo xam ne dañu liggéey pour affaire affaire bi ñëw mm-hmm. affaire yooyu ko quoi moo tax bëggut daal dëgg mm, dafa am différence macha allah muy lu am solo loo xamante ni wax dëgg fa yàlla am na solo lool lool lool saltige Jogoy Njaay di ko expliquer euh, saltige mm-hmm. dañuy ñëw itam ci guy googu nga wax ba léegi euh, pax boobu ci biir guy gi da ngay yóbbu ay nit di leen fa dugal di leen fa sang wala. de pax bi moom ñe gars yi ñemewuñ ko. ah ñemewuñ ko. <laughs> moom mais yow cay dugg. waaw mais su dee foofu moom. ah mhm. xam bi yaa foofu la ne xam yi xam mm, da ngay dem ci xamb bi yeeg sangu de ci xam bi yeeg. sangu ba. Mhm. mu jeex rek sa yaram set wicc li nekk sa yaram deñ tilim tilim yëpp deñ deñ waaw mais pax bi moom ñoom duñu fa dugg duñu fa dugg hmm, hmm. euh, ñu gis tam xam yi nekk foofu euh, am na ci benn vidéo mu ngi noonu di daw ci écran bi sax ah. vidéo boo xam ne gis nañ la ci biir euh, kii bi noonu xam yi ngay yëngal benn siwo bu fuur bu weex Ya. Bo gay yi ne vidéo bi sax soow siwo bi soow mo ci nek affaire yoyu waaw gay dima ko laaj nak soow bi nga yengal nak nangam ma ko di soow <laughs> sangat la moy sangat bu weex ok sangat bu weex bi bo soo ko sangoo moom mhm. yaram yi day set wi ba pare pour khalis pour alwalu khalis day xicc alwalu warsek mom lu muy deuguer deuguer mom bu soobee yàlla mom. da ngay laal bu baakha ba ok lu muy deuguer deuguer mom da ngay laal bu baakha ba mhm. mo tax sangat bu fort lol ok mhm, am doole trop sax mais boobu du ñëpp du du ñëpp lañ koy defal. déet il faut moom nga xawal lii boobu moom. sino <laughs> boobu am na lii de moom vraiment. Hmm. am na doole de. Hmm. mais am am yi nag yemuñu. ok am am xanaa di jàppale jo doomu jaamu yàlla yi rek. di leen jàppale rek mais am am yi moom yemuñu mais sangat boobu mag dafa diis lool sax. ok mhm. mais comme tey euh, ku ku ko gis vidéo bi ñëw ne la moom laa bog itam dañ ko koy defal wala dañ koy xool. non boobu moom jarul xool. Mhm. su dee moom la soxla moom jarul xool. jarul koy defaral rek. Mhm. da ko bi ci lan lay dox ci lan lay faral di dox comme may xaalis wala bayre wala kaaraange. dafa ànd ak lépp nag moo tax mu mel noonu. Ah. Mhm. kaaraange dina ci bokk tuuti. mais li ko tax a nag mooy affaire loo xam ne moom daf lay yëkkati ci kaw ndax soo koy sangu sax doo laal suuf. doo suuf. soo soo koy sangu moom doo laal suuf. ok da nga yëg ci kaw mais danga koy sangu. Mm-hmm. mais ba pare def day ubbi warsek yi bu baax. bu bu baax a baax day ubbi warsek yi. Mm-hmm. waaw ba pare si yaram yi nekk tilim tilim affaire yu cat affaire yooyu noonu gémmiñ yi. da koy dindi yi dal ci yow yëpp daf koy taxas ba nga xam ne say am am sax day yom say buntu day ubbeeku bu baax a baax. loolu moo tax mu dox quoi. Ah, muy lu am solo loo xamante ne nii euh, yaakaar naa loolu moom. Mm-hmm. gars yi war nañ ko daw seet si. ndax euh, sangaat buy joxe dara moom wax dëgg fa la bëgg na ñëpp bëgg nañ ko euh, ñu ñëw itam ci saltige ci jaaro yi ak ceen yi nga xam ne yaa ngi koy defar ak hmm. téere baat yooyu comme ba yooyu nga takk itam waaw seen njariñ lan lay jariñ dëgg dëgg hmm. Hmm. moom jaaro yi nag comme ça yi saar yi lay doon jaaru cat la cat jaaru affaire cat la quoi moo tax am na ñoo xam ne pour ñu takk nombo def leen di déranger waaw waaw def leen di déranger bu baax moo tax ñu def jaaru xaalis yi ok am luñ ci dugal ci biir mooy cat yi. cat mhm. su dee ceen yi itam. Mhm, mhm. Euh, boobu moom affaire warsek la ak bayre. warsek ak bayre ak bayre. mooy yii moom la mais alxuraan la ko waaw ah, loolu ay xaatim yu mag lañu bind nii. lem ko def ko ci mooy. mooy bii. mooy maanaam yooyu euh, ci lan laay ëpp ci li muy dox. bii affaire woo wuutin rek. wuute mhm, affaire wuute rek loo xam ne comme ça soo doxee nii pour wuuti quoi comme dem liggéey wala nga nekk sa baramu liggéey bugg dem kanam quoi bugg a kawe quoi waaw mu gën a yomb mu gën a yom bugg a kawe war sek am ci yow mhm. loolu moom soo ko defee yii ñu bari dañ koy commande am na yu ma commande sax gosaas lañ koy liggéeyee gosaas am na ñu war a ñëw suba ci dimanche bi suba encore incha allah am na ñu war a ñëw suba ci su ñëwee ba pare ma liggéey ko quoi incha allah mhm, mhm. ah dañ koy aw foofu ba pare dañ koy aw foofu gis gisoo nga ko su ñëwee ba pare fii ngay dugal foofu rek teppi teppi dugal galaaj bi après nga ñawaat ko quoi lii ay galaaj la quoi mais ku ko gis ni to comprendre nag mu ngaa yaa da ngay yaakaar ne leneen a ci voilà mi yëpp ay galaaj la dëgg la dëgg mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ah. mais amul si yoo xam ne day dox ci alxuraan noo ci sunguf quoi ci sunguf no yii moom amul yi dox ci sunguf mais am na yoo xam ne it comme bii moom du alxuraan ah. bii ah. mooy alxuraan bi mais bii du alxuraan bii nag dafa nekk bayre bu kawe bu mag sax ba nga xam ne soo ko yoree foo jaar sax dañ lay xool dëgg la bii moom soo ko yoree foo jaar dañ lay xool waaw moo tax it dafa war a àndaale ak muslaay bu baax muslaay way dëgg la Euh, muy lu am solo loo xamante ni wax dëgg fa yàlla yaakaar naa ñëpp bëgg nañ ko bayre bu ànd ak muslaay moom ànd ak kaaraange mm-hmm. moo gën fuuf bu amul kaaraange mais saltige ñu ñëw nag ci loo xam ne keroog biñ koy essayé kër ga soxna si sax daa mujjoon tiit muy <laughs> ndoba tul yi waaw ah, ndoba yi nag ñëwul tey mais lu wër te wóor la mm-hmm. waaw ku ko weddi rek numéro baa ngi noonu wooteel to nga dem xool mën mm-hmm. nga essayé ba mu doy la nga doog a fay booy dem itam bu la neexee nga jën sa paaka bi nga gën a wóolu nga yóbbu yóbbaale ndombo tul yi ak saltige jogoy njaay mm-hmm. ndombo tul yi moom am na ñaari tul mm-hmm. am na simple bi am na ndamal weñ bi ah, léegi ndamal weñ boo xam ne bu la jamee day dugg wala non non simple yi mooy ku la jam du dugg du ndamal weñ bi moom sa yaram su tàngee waaw soo laalee weñ bi sax da gis du mu def nii mu xaw a lemu quoi. mu lemu mu lemu nit su la dawale ak paaka bi du egsi ci yow. day lemu day lemu voilà. est-ce que yaa yaakaar naa gis nga tul bi ma doon toog ci benn vidéo waaw bi ma ko lekkee da nga mm-hmm. gis sama yaram bi daa jékki-jékki rek daw bi ma jëlee paaka bi mm-hmm. bi ma ko dooroo rek ñetti xaaj la def est-ce que ñetti la def. Mm-hmm. te loolu itam ku mu neex itam booy ñëw bu la neexee nga jëndaale sa paaka ñëw essayé. ak paaka mais daa ñoo xam ne moom ñemewul. ñemewuñu essayé mm-hmm. sa yaram it am na nu mu tilim tilim mais tul pour mu jàpp la day xaw a jafe. day jafe. Mm-hmm. il faut nga jox ko galaaj boo xam ne ko sangu ba yaram yi set wicc. nga defar ko ko ne ko demal. ok waaw nga jox ko su la nga jox ko mu dem togg lekk wala mu jël nombo bi tàkk. Mhm. mais su defee su su miinee yaram yi rek day dem a dem dem a dem ba moom ci boppam sax su bàyyatee nooma bi ci kër ga sax bu mhm. fekk affaire bi mu ngi ci moom mu ngi ci yaram yi mhm, mu ngi ci yaram yi ba lan ngay wax ñi nga naan ñi nga xam ne dañu naan tul bu bari euh, day um nit su su su dee sunguf tul bu bari su dee nomb bi moom set gaaw yi soo ko seeree lépp Mhm. an soo ko seeree dara du la dugg dara du dugg itam moom saa yu war rek day xaw a tëju quoi. mais soo nekkee si sa bu liggéeyukaay da nga seere benn bi rek wala ñaar. waaw waaw di nekk sa sa liggéey mais nag soo génnee nag di dem fu danger moom. Mhm. da ngay seere lépp. ok mhm. xam ne da lay aar. voilà daf lay aar quoi. ok waaw muy lu am solo loo xam ne ñu bari dañ koy laajte itam mënul ñàkk bu ñu toogee ki yéen ñi nga xam ne yéen a koy liggéey borom xam-xam yi. Euh, ñu laaj leen ko mais ndombo yooyu euh, sëñ bi. dañuy gis ñuy faral di gars yi di ko takk di daanu yas yi. waaw ndobatul yi day amaale yasi yi wala à la. non nombo yi soo buggee yas mhm. dañ la ci defal yas yi. ok. waaw sa de parti client bi commande client bi commande dañ lay wax ndax da nga bëgg yasi wala su dee da nga bëgg yasi mhm. dañ la ci défalal yassi ok dañ lay nek tul ak yasi bi ñu bolé ko mu def ko benn nombre bo moom so méré da ngay daanu uniquement ok da ngay daanu uniquement soko ko nak nag da ngay daanu yit encore ok ko lék mhm. bi mom même su amul yasi sax lék bi moom soko ko rek so yaram su tangé rek da ngay xel di daanu da nga soo daanoo itam da ngay gis fek jamuñ la ay paaka laaluñ la mhm. ay paaka doo lii doo bàyyi do bay waaw wala xorom ñu jox la xorom ñu jox la xorom waaw loolu rek moo koy dindi moo koy dindi mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ndeysaan loolu am na solo saltige euh, dañuy ñëw itam ci mberu làmb yi ndax bokk nañu ay taxawaay bokk nañu itam ay seengoor ah ak euh, ay bëjën yu ñuy soox yooyu yëpp yi nga xam ne mbër yi dañ koy itewoo mm-hmm. ah numéro baa ngi noonu saltige dina leen leeral sengoor yi li muy jariñ ak bëjën yi lépp ndax keroog maa ngi filmé naan saltige jogoy boog naa nga wax ma soow yi mber yi tuuroo lan lay jariñ ak bëjën boobu ñuy soox niñ koy liñ koy sooxee ak loolu léegi dama bëgg nga leeralal ñu loolu yëpp waaw su dee wàllu mburu yi itam lu ni moom dana ci liggéey lu bari sax mhm. dana ci liggéey am ndax am na ay seengoor yoo xam ne moom mhm. moom ngay lal ci biir rek comme gars yi noonu di def lal ngay lii nga tagg ko mais am na yoo xam ne ci biir ngembu yi lay nekk bi nekk ci ngembu yi nag dafa bari ay façon dëgg la ndax am na yoo xam ne moom pour soo ko xesee def da ngay diis am na yoo xam ne soo ko defee sa tànk encore mhm. de mel nii tànk bi dafa samp ci biir suuf si pour nit jël la ba mun laa jël ba egsi ci yow wala mu yëkkati la day mm-hmm. diis ci moom te du du xam lan moo ko diisal waaw soo ko defee rek mën nga am chance nga nga répel ko mu daanu loolu moo tax léeg-léeg mbot day jël nit rek répelu daanu te doo xam lan moo ko daal voilà loolu la daa am ay galaaj yu yu bëri li nekk ci biir mbër soo ko amul nag mooy loolu am na ay sangat yoo xam ne it def lay may chance ndax mm-hmm. chance rek mooy loolu am na soo amee chance mën ngaa du dugg ci lii lii boo xam ne mm-hmm. ci gala boo xam ne comme étape boo xam ne ñi fa nekk ñëpp ñëpp ñëpp yaa leen mën waaw avant avant ngay exit ci ñi ñi la mun rek nga dem final mhm. Mhm, loolu moo tax sens dafa am baax ci bëre quoi ci mbër nga ngay am sens te dem loolu la waaw loolu amna solo bu baax baax baax mais sing bi nak dama gis nak lu rar lo xam ne pour ma gis sëriñ bu ko wax ci émission yombul ah. wala bok euh, même fekkente ne ñu ngi koy wax itam man déggaguma ko muy la pataké waaw pataké waaw am na door mu daanu mhm. waaw loolu nag <laughs> kàkk ci ki lii lañ koy defaree kàkkataar xam nga waaw waaw li ñu jamee noonu jamee noonu waaw xam nga ko euh, ja kàkkataar mooy saaru fit yooyu du kàkkataar wala du kàkk ab beex deex ab beex ab beex abeex i beex waaw nuñ koy wax ci olof tey dañoo dégul olof de gars yi. abeex abeex waaw beex waaw. waaw ofeenole. ofeen i i waaw. ok waaw boobu lañ koy defaree. boobu ah, moom. Mhm. jiit jiit. jiit waaw jiit. voilà jiit voilà <laughs> jiit waaw <laughs> jiit li muy jamee noonu. waaw moom la ñuy dag rek. ok boo sos ci amee set. ak yi mhm. ci boole. waaw uuf. koo door du taxaw. mooy jiit. waaw voilà boobu doon du taxaw. mooy mooy li muy mate noonu. rek ci ginnaaw wala lu muy ci ginnaaw boobu dafa saf. ok mm, la waaw. ce que. Mm-hmm. Euh, loolu am na solo xam naa gars yi moom dinañ la woo incha allahu rabbi ndax mbir yi moom. bëgg nañu loolu. Mm-hmm. <laughs> mais itam. soo xasee am lapataake mi moom. Mm-hmm. avant ngay boole rek taalal tuuti rek saal taal. waaw nga tàngal lapataake nii def ko nii ma tàng jiri jiri jiri. waaw ba mu xaw a tàng tuuti. nga seeree ko mais soo moytu sax soo koy seeree. Mhm. soo moytul day jékki-jékki dagg. ndax ah? doole bu muy doole bu muy àndal voilà. ok. Mhm. est-ce que. Mhm. Euh, mais contour la pataake it amul. contour la pataake. ndax comme comme tey yow nga takk la pataake man takkuma la pataake may bere ak yow mu leer ma ne yow takk nga la pataake may bañ nga dooruma ma ma daanu. waaw. waaw amul galaaj boo xam ne itam man su ma ko takkee boo ma dooree du ma daanu. ndax boo ma dooree duma ma daanu. waaw <laughs> non galaaj yooyu moom duggaguñ ci. Ah. <laughs> mais moom duggaguñ ci ah. waaw. na rek am na loo xam ne moom. waaw munul nekk. dëgg la am na loo xam ne yow yàlla kese moo ko mun. waaw loolu mais soo waxee lu nit wax rek nga ne loolu kay. mun naa ko li nga wax ne xam xam nga ne li may wax moom amul. dëgg la de. <laughs> loolu moo tax nit moom day wax dëgg. waa loolu moom moo am solo. waaw bu ko dee boo te tëddee rek nelaw. voilà kese est loolu la de. <laughs> walaay mm. acca ñuy siyaaraat mbokk yi seetaan Ngoy TV yëpp wax dëgg fa yàlla ah am kontaan bu baax dalal saltige Jogoy Njaay a fii nii ci mm. Ngoy TV mu seet suñu ñuy waxtaane xam-xam xanaa dañ lay bàyyi rek euh, comme niñ koy defee saa su rek nga développé su fekkente ne am na leen loo bëgg a leeral. Mhm. te jotuñ la ko laaj nga leeral ko mbokk internet yi. Mhm, mhm, loolu la kay. waaw di sant gaay rek. comme li ma la wax chaque jour rek. comme man sant sama sëriñ. comme sa kii tax man nekk nii rek ndax man comme ça li ma la waxoon rek. ay ñaan moom. dama ko doon dama ko bañoon sax ne duma ci dima ko def. duma ko def. mais mënuma koo bañ ndax xam soo yoree ay rawaan rek. Mhm. Mhm. ak euh, sama papa daa am lu mu doon en nekk borom xam-xam loolu ñu bëri ràññee ko. dëgg la waaw ñu bëri ràññee ko. Mhm. waaw waaw mu nekk xaritu ku ma doon wax Ibou. Ibou mu nekk Ibou Kama. Ibou Kama. Mhm. léegi sax sama papa bu ñu gaañoo nag. Mhm. Mm, Ibou Kama moo ma jël def ko comme boppam. macha mhm. léegi nag euh, am yu ma jox ne ma demal nga def ay ñaan ndax sax papa am na lu ma waxoon. dëgg la ma ne ko déedéet man lii duma ko def de. mu ne ma defar defar rek ndax daa am lu ma waxoon avant muy dem am na lu ma waxoon ko waa ci yow. waaw waaw waaw ma def affaire bi mais gis nga affaire bi dañ koy def rek day commencé. day commencé normal ndax xam ne dëgg la rek. nekkul caaxaan boolewu ci ak ndax da jàppale jaamu yàlla te yàlla rek tax mhm. loolu moo tax Ibou Kama moom maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant macha allah waaw ak Cheikh Kama magam ñoom ñëpp maa leen di sant bu baax ak ay njabootam di leen ñaanal jam ak mhm. tawféex di sant sama yaay di sant sama papa mhm. waaw di sant sama soxna sant lépp waa jaxaw siin waa njom ñeex ñu fa nekk yëpp maa ngi leen di ñaanal bu baax incha allah waaw ndax soo waxee jaxaw wax njom ñeex man pi biir njom ñeex laa dëkk ku ma sax ci njom ñeex ñoom waaw kon nag ñi nekk ñoom ñaax yëpp maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax hmm. di nuyu waa groupe waa groupe saltigi jogoy njaay jogoy bi waaw cent pour cent bi uh-huh. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax hmm. waaw di nuyu ku ñu wax saltigi maam Xaadim kooku moom sama doomu ndee la ndeysaan nuyu bu baax a baax uh-huh. waaw waaw di nuyu Matar Sarr mm-hmm. ñoom Matar ah ñoom mafia mbuur bi ñoom saanu bandi ah waaw gaa yi yëpp maa ngi leen nuyu ku ma tuddul rek xam ne yaa ngi ci biir mënu maa tudd ñëpp ndax ñëpp affaire bi dafa yaatu ko waa mm-hmm. mm-hmm, dafa yaatu moo tax macha allah mais maa ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jàmm rek di ko sàkku ci yéen mais mais si bi foofu itam fàttali nga ma dama gis léegi ay xel yu ndaw ñooy nekk ay saltige waaw loolu itam phénomène la wala la lan la daal ah. Mm, saltige léegi moom dafa bari lool. dafa bari de da ngay gis nit rek jóg rek. ki def ay saltige laa. waaw def ay. affaire nag yu xonq ak lépp waaw waaw waaw. Ah? <laughs> loolu de <laughs> mais nag. ni li nit net mo ni euh, nekk moom. Uh-huh. nga jékki-jékki gis ko muy def rek moom. Uh-huh. to xamoo xamoo lan moo ko ko def loo xanaa nga noppi ca rek. bàyyi rek jàpp sa njàngur. waaw ndax loolu moom dafa bokk ci diinite. mais di lijjante nii ku am lii kii mënul dara lii na woon dara. Mm-hmm. yow daal nekkal sa liggéey rek nekk ci li nga nekk rek jàpp sa mm-hmm. njaambur mm-hmm. waaw loolu daal moo gën ngay lijjante ay nit wallaay dëgg la waaw loolu moo tax <laughs> bari na lool mais mooy loolu rek ah. am ñoo xam ne yàlla may na leen am na ñoo xam ne dañ leen di sampal rek muy def am ñoo xam ne moo kenn sampalu leen dañoo jékki-jékki rek mm-hmm. doon ko dëgg la macha allah loolu la kay am lu am solo ñu ñuy seedal mbokku internet yi ñun ñu éviter koo xam ne day caaxaan ñu éviter itam koo xam ne jëflantewuñu ak moom wala koo xam ne boolewuñ ko ak ay nit mu gis résultat ndax dara gënul wóolu tey yaramu doomu aadama ak ni mu yaram ni mu mitee nga jël paaka di ko dagg ci yaramu doomu aadama te dara euh, sikku ca kooku bu la ne mën naa laa defal nga gis doo ko weddi te ki ñu toogal nii di waxtaan ak moom di nutu caaxaan waaw di nutu caaxaan to gaa bés dina ñëw incha allahu yi ñu ànd ak moom dem ba ci cosaanam jël lépp jël euh, garab yi nekk foofu jël lépp li nekk foofu ndax saltige du fii rek lay liggéeyee hmm. boo ñëwee yenn saa mu xool la xam ne yow mi yeloo nga dem dëkk ba hmm. day dugg ak yow oto yóbbu la du noonu la Mhm. voilà loolu laay de waa ndax am na yoo xam ne fii mënuñ koo liggéeyal biir Dakar dëgg la mhm. il faut ñu dem village ci guy ga sa guy ga mun koo liggéey foofu mun laa faj normal ba nga wér incha allahu rabi mhm. waaw muy lu am solo wax dëgg fa yàlla émission mu ngi gudd ngi ci 33 minutes mais en tout jaajëfal nañ la di la baaluwaat ak ci déplacement bi ci weeru koor gi wax dëgg fa yàlla lool waaw meloon mënoon ngaa bàyyi rek ñu ñëw nag waaw <laughs> walaay lii mooy wane ne oyof rek mu am solo vraiment ñu lay gërëm bu baax di la sant mm-hmm. bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi jaajëf maa ngi leen di ziar bu baax Moussa yow itam mm-hmm. di la ñaanal rek yow moom ku baax nga di la ñaanal rek nga yàgg fii loolu te wér jërëjëf alhamdulilah rabbil mm-hmm. alamin di ziar ñëpp di ñaanal sëñ Muntaxa Basiru mu yàgg fi lool te wér mu yàgg fi lool te te wér képp jullit rek fi foo mun a nekk rek maa ngi lay ñaanal bu baax a baax woor gi ngay woor yàlla nangul lako ko waaw ubbil ñu suñu warsek yi waaw def jàmm si Sénégal bu baax a baax ñun ñëpp ñu nekk benn ndax ñun ñëpp benn lañ do ñun ñëpp ci aadama ak awa lañ jóge loolu moo tax ñu ñëpp dañoo war a booloo nekk benn loolu moo tax àdduna amul solo chaque jour ñu koy oyofal rek te xam ne fii moom yàggul dañu jékki-jékki rek mm-hmm. dem da nga xamante nit mu jékki-jékki rek ne gaañu na sa àdduna di tukki loolu moo tax dara fi fii moom yàggul loo liggéey rek nay mm-hmm. lew wallaay dëgg nay lew rek mm-hmm. incha allah jërëjëf saltige kontaan nañu bu baax a baax euh, mm-hmm. di euh, dox gars yi dox daje bo beneen émission incha allahu rabbi waa émission bi ñëw nag dinaa dox xool commentaire yi ndax Dakar dañoo bëgg ñu defe ko Dakar wala dañuy dem village ñun moom pare nañu <laughs> waaw <laughs> jërëjëf kontaan nañu bu baax jaajëf asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Ngoy yéen waa àdduna képp koo xamante ni abonné goo rek dawal si Ngoy TV nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko incha allah c'est meilleur Ngoy TV c'est meilleur leen di ziar di la ñaanal jàmm ci di ko sàkku si yéen.